jërë ngeen jëf mbokk yu safo jamono tv dellusiwaat nañ farce si leen indil ay leeral yi nga xam ne jot nañ ko ca dëkk buñ tuddee Sierra Leone nag lu yéeme lu daw yaram lu ruuslu moo fa xew dana ba nga xamante ne daal ay nit ñu dee ñoom la ñuy sulli jël seen yax yi di ko jaay ñeneen ñoo ñuy jël yax ya yóbbu ko sa Amérique di ko fa defar defarin bi nga xam ne dafay mel ni sunguf sunguf soosu nag suñ ko defee euh, dañ koy jaay am yuñ ci boole euh, mu doon drogue nit ñi di ko jëfandikoo rawatina gone jëlee mooy fañ ko jëlee di saral yoon yóbbu ko Amerika fa lañ koy delloowaatee mooy delloowaat ko saral yoon jaay ko ndaw yi ndaw yi di tuux mbir moomu te la ñuy tuux nag mooy yaxu seeni mbokk yu faatu ñu jël seeni yax dem jaay ko ca dëkk boobu noonu di réewi tubaab ya suñ ko dellu suwaatee delloowaat ko seeni mbokk waaye day doon sunguf bi nga xam ne ab dorog lay doon askan wa di ko jëfandikoo ci jëfandoon bi nga xam ne day tàggoo seeni sago loolu nag jamono ji tax na nag ca réew ma am na mbootaay bu fa juddu ñu judde ñu tuddee leen Euh, mbokk ñu faatu ñi mooy xarit xarit ñu faatu ñi xam ngeen ne nit daal soo faatoo doo amati xarit léppay dog waaye jamono ji daal ñooñu sos nañ mbootaay boo xam ne ay ndaw ñu ngi ci ak ay mag ñoom ñooy topp bàmmeel ya nga xam ne moom moo nekk ca réew ma ñuy xool di seetantal ña nga xam ne ñoo fay dugg ak ña nga xam ne ñoo fay génn mbaa nekkuñ di jël seen eh, yaxu niw yi seen i mbokk yi di di ko yóbbu di ko jaayi ca Amérique américaine si ñoom tam ñu jël eh, yax yooyu dëbb ko wol ko def fa ci ay mbir mu mujj a nekk dorog askan wa di ko jëfandikoo loolu moo tax jamono jamono mu Di askan wi di dénku kilifa yi di dénku borom njobot gi nañ waxtaan ak seeni njobot ndax musiba mbaba kumba bile mu ñu muccu si loolu moo tax na jamono ji daal jamono daal mu ngay mu ngay wax naan képp koo xam ne da am nga mbokk nang na nang ko nang ko yegal mbir mi len waye nak olof ja day wax ne ko bala nga lakkale kon li mo nekkon gestu bi nga xamne defal nañ len ko ci video bi ngay gis ni ne